la senactu 44.com. jërë ngeen jëf mbokk yi nga xamante ne si yéen a ngi ah ci seen actu ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax fépp fu waay mën a nekk rek waxtu wi du ñu seetaan ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a tey nag ñu ngi fii ci diwaanu Pikine ah fas yéene waxtaane li nga xamante ne si moo di match bi nga xamante ne si moo dox si suñu diggante ak Gambie xam nga ni euh, suñu gaynde ñu ngi foofu ca Côte d'Ivoire ah euh, di préparer li nga xamante ne si moo di CAN bi tey ñu ngi Pikine fas yéene waxtaan ak doomu Pikine yi fas yéene waxtaan ak ñi nga xamante si seen xam-xam daa jëm euh, ci li nga xamante si moo di euh, ci football euh, bu ko defee ñu waxtaan ak ñoom damay daal di topp grand maa ngi ñu gis la nga nekk sa place di am yooyu ñaw yooyu noonu ñu am benn lu ñuy préparé mu di Coupe d'Afrique ah suñu gaynde yi nekk foofu ca Côte d'Ivoire ñu war a dox suñu diggante ak Gambie suñu premier match naka nga gisee gaynde yi keroog seen premier seen match Niger. waaw alhamdulilah gis naa leen ay jàmbaar lañ macha allah keroog def nañ mas bu baax mais dafa am tuuti lu des rek mooy classement bi quoi. ci naka. côté classement bi mais Aliou Cissé classement bi mu teg baaxul parce que ay Niger yi normalement war nga leen mën a dóor score. Hmm. parce que duñ seen morom ci football ñoo leen ëpp ay joueurs ñoo leen ëpp joueurs yi au niveau. xam nga waroon na gën a mën a score bi waroon na gën a mën a bëri quoi macha allah. oui mais tey comme bu fekkoon yow yaa toog place su Aliou Cissé bis boobu noonu boo doon classé lan ngay classé. waaw mais classe classement bu baax rek 4-4-2 rek. 4-4-2 waaw 4-4-2 rek classement ba comme que Sadio Mané départul bu saf sàpp. Hmm. percé gars yi dugal bu ñu amee 4 wala 3-0 sax baax na. Hmm. boo jëm ci coupe d'Afrique daa am benn xar kanam booy ñëwee quoi. score nga war a dóor pour yéen équipe bi mën la sóoraale. mais am na yenn score yooyu dóor sa waay yooyu. mooy loolu gars yi dañ lay ñeme quoi ñu la waroon a ñeme lay ñeme. noonu la demee waaw. Hmm. kon daal su la déggee mooy Aliou Cissé keroog li mu teg ci classement bi maanaam daa maanaam. dafa des dafa des dafa des moom wax dëgg yàlla dafa des booy jëm ci coupe d'Afrique daa am xar kanam booy ñëwee quoi mais pas nu mu ñëwee bii passé nii dafa des lu bëree bëree bëri. dafa des bu baax a baax sax. comme moom mi ngi lay seetaan te jamono bii moom mi ngi Côte d'Ivoire ak gaynde yi moom boo amoon loo koy wax tey euh, ci suñu match bi nga xamante ni si moo dox ci suñu diggante ak Gambie lan koy euh, digal pour mu def ko ngir ñu mën a am euh, suñu première victoire ci Gambie. waaw waaw mu teg classement bu baax rek booy ñun am ay joueurs ñun Afrique ñoo fi ay joueurs mu teg classement bu baax 4-4-2 bu baax tegal ñu Boulaye Dia bu Boulaye Dia blessé mu jéem a indi Famara Diédhiou wala mu indi keneen mais pas li mu teg bii passé li mu teg bii passé dalul xel te ñun ci Coupe d'Afrique bi ñu jëm équipe dañoo baax ay Égypte ay Maroc ñoo fa nekk équipe yoo xamante ay au niveau lañ nekk kon ñun war nañu mën a tegal suñu match bi di ñëw contre Gambie tegal ñu lu baax lu wow kong loo xamante ne Gambie dañ koy dóor score sa premier match Coupe d'Afrique da koy assuré boo ko assuré sa deuxième mu leneen kon daal su doon man maa yow euh, li li nga wax ni moom la Aliou Cissé di def mooy mu tegal la 4-4-2 yow daal 4-4-2 bi nga gis. 4-4-2 bu baax la tegal teg 9 point bu mënul teg euh, Boulaye Dia mu tegal ñu Nicolas Jackson ñu mën a am ay bii yu bëri waaw. ah yow daal loolu nga gis. ah waaw mooy yoon sax loolu mooy yoon li ma wax nii mooy yoon. mu ngi noonu euh, li wax noonu mooy yoon ci nekk ak sa gis-gis ah kenn ku ci nekk ak ni ngay ak kenn ku nekk ak ni ngay seetaanee marché bi moom loolu la xalaat te yaakaar naa ne a baax li nga si moom rek moom kontaan nañ ci yow gis ñu ngi rafetlu sa a xam allah daal yàlla na affaire jëm ca kanam a kanam ba ngeen dem ba yor seen i télé mun na ko yàlla na ko yàlla suñu borom def yéen jàmm ci yéen rek bëgg nañ ci yéen trop macha allah ayca merci beaucoup mi ngi noonu comme ni ma la ko waxee de nee naa leen nii la maa ngi ci diwaanu Pikine ah, euh, di waxtaan ak li nga xamante ne si moo di euh, sunu sunu sunu sunu xarit yi ah tey ma taxawaat ak beneen kenn nee naa leen du ma génn fi ba tey ci fii laay taxaw rek ah, euh, mu di kii grand maa ngi lay siyaar maaleykum salaam si nijaay mbaa yaa ngi si jàmm tawfeex ak taysiir kay yaa ngi préparé suñu match ak Gambie bu baax a baax doomu nday dañ leen di door waaw kay léegi yow su doon man maa yow naka nga gisee match bi nga xamante ne si moo dox suñu diggante ak Gambie waaw Gàmbi moom comme suñuy doomu bàjjan lañ moom ñun waaw làpp rek waaw suñuy jabar la ñuy doon ñu làpp leen làpp yu baax te gaaw premier mi ñu doon leen trois ñuy en attendant bu ñu seysee ñu defal leen lindamiel bu baax deuxième mi bi laabali leen deux dooli leen ñaar muy cinq zéro d' accord léegi yow euh, Aliou Cissé yaakaar naa ne mu ngi seetaan euh, sénégalais yëpp tamit ñu ngi seetaan yow bu fekkoon euh, yow yaay wax tey Aliou Cissé li muy def wala yow mu doon mu laajoon la sa xalaat tey ci match bi nga xamante ni moo dox ci suñu diggante ak Gambie lan nga koy wax. man daal li ma koy wax mooy match yi daal moom di ko joué pointe moom loolu neexu ma wóorul. Hmm. équipe day am pointe nañu tegal pointe attaquant boo xam ne day dugal Boulaye Dia wala Nicolas Jackson wala Famara Diédhiou ñuy pointe di dugal parce que am nañ lépp ci milieu terrain bi am nañ lépp ci défense bi léegi bu ñu tegalee pointe rek bali bu xelee ko Ismaïla Sarr def effet nag def effet daa war a def effet moom. waxoo daw bu baax gaañ ku baax ma ne jot na del buddi di xeli bali di dóor muy dugg loolu ko sant loolu ko laaj waaye li muy fubalal ngeew yi waaye ñu dañoo mérité waat suñu deuxième sens suñu deuxième étoile Aliou Cissé yow lañ ko dénk dégg nga li président wax ni mu def terre bi def ko BRT bi noonu lañ ngeen war a def équipe yi feyee muy gaaw rang noonu la demee de bàyyi acca mu ngi noonu kon euh, yow daal euh, ñun ñëpp ñu ngi bàyyi xel suñu premier match ak Gambie fi mu ne kon yow daal bu ma la juumul mooy noppi nga fi mu ne man pare naa man pour man Gambie waaw mariage bu gaaw lay door rek amul amul ñaan sax ay may gu njëkk yu bëri noonu dañ leen di dóor rak tak premier mi-temps trois deuxième mi-temps deux cinq li na mel bi mat loolu nga gis waaw loolooy am waaw am. kon baax na. <laughs> ko ci marché bi nga xam ne moo dox ci suñuy diggante ak Gambie maa ngi lay siyaar. Eh, ça va na nga def. mbaa yaa ngi si a maa gis nga sol sama yoo euh, euh, France peut-être xam naa sa mooy daf bi nga commandé daa yegseegul ci Sénégal peut-être yow yaa jëndagul mais euh, dañuy jëm ci doy waar mu di Coupe d'Afrique mu nekk loo xamante ne si réew mi yëpp ñu ngi koy bàyyi xel ñu suñu premier match ñu am ki nga xamante ne si moo di Gambie tey boo doon waxtaan ak Aliou Cissé tey lan nga koy wax en tant que moom mi nga xam ne mi ngi lay seetaan waaw di ko wax ni ko bon réew mi yëpp ñu ngi seen ginnaaw ñu ngi leen di xaar aussi comme que boo ñëwee tamit man li ma li may wax Aliou mooy édition yi passé yëpp gis nañ ni champion en titre bi bu ñëwee mhm. day am ay problème yu mag yu ko équipe yi di posé mhm. kon nag bu ñëwee nan teey mhm. na na équipe bi teey serein ba pare li ñu war a def li nga xam te ni nii moom war na ko dikkee mu dikkee ko ndax tamit kenn du dàq ne ñun suñu statut ñu ñooy champion d'Afrique te war na ñoo conserver suñu statut mais nag na na a am mental gën am fulla gën am fay te tamit bu mu fooyee suñuy classement xam nga tey am na équipe yoo xamante ne nii lu mel ne Sénégal lu mel ne tey yaa ngi ne ma France bi ma sol France tey boo ne woon tey un simple français joxe la onze euh, type de l' de France mën na ko joxe le onze type de l' équipe du Sénégal ça ça se dégage te c' est clair et net mhm. Aliou Cissé bu mu fooyee suñu classement bu mu foyee sunu classement Sénégal système normal am 4-3-3 la. na ko football bu mu ñu football loo ay piston bu mu ñu football loo dara. l'axe en forme ñaxate la Koulibaly na indi ñaari latéral droit am yu baax muy Jacob soit bu sabali wéree mu football bu wérul mu teg Crépin mais nañu indil loo xamante ni nii lu clair la. dafa war a clair bu ko defee nag ñun ñëw sunu sunu classement ki gën tuuti si Sénégal xam na ko. ku gën a tuuti Sénégal xam na ko kon donc nanu nanu respecté ñëw def li nu war a def li indi des nag yàlla mooy mottali mm-hmm. waaw bon yow euh, en tant que euh, professionnel di suivre football euh, ci yow bu fekkoon yow yaa taxaw taxawaayu Aliou tey ci suñu diggante ak Gambie lan nga mën a teg pour am Gambie parce que sa premier match la da nga ko a assurer sa deuxième match boo ko assuré wul sa troisième match da nga ko a assurer mais sa diggante ak Gambie laka nga mën a teg ba am ci dara. waaw loolu tey euh, tey Gambie mën na ni tey boo xoolee statut Gambie ak statut Sénégal xam ni le Sénégal tey euh, en tant que champion d'Afrique tey. nekk yi nekk équipe boo xam te nii li mu dem ci ay édition Gambie demagu ko kon donc le Sénégal est nettement supérieur mais li nga xamante ne nii war nañ ko def mooy ñu respecter Gambiens yi ñëw teg classement bu normal bu jaar yoon ba pare les gars ñi nga xamante ne nii les acteurs mooy ñi nga xamante ne nii ñoo war a défendre le titre du Sénégal ñu ñëw football normal de jouer leur partition comme niñ ko daan defee après li des le résultat va suivre Gambie dañ koy dañ koy yàlla dañuy dimbali ñu gagné ko facilement suñu premier match suñ ko gagné avec les trois points léegi les autres matchs dañuy xool daal di daal di avancer ndànk-ndànk match par match ñu jël ko ci compétition bi ba dem. parce que ñu bañ leen xeeb quoi en fait. non non loolu du ci am football amatul tollootul foofu ndax Gambie def na ay prouesse ci CAN bi passé ku nekk gis na li fi Gambiens yi def. def nañ ay résultat génn pour leur première participation ñu génn premier tour kon donc Gambie c'est une c'est une équipe à à prévoir équipe boo xamante ni la Aliou Cissé ñëwul yàpp Gambien yi ñaar yoon te football nañoo ñoom fii en qualification chez eux ñu gagné ñu. kon donc Gambie du équipe bu ñuy xeeb wala dara mais nag ñun xam nañ bu baax ne nous sommes supérieurs à cette équipe gambienne nanu def li ñu war a def li des yàlla dina ko mottali incha allah. merci beaucoup ñu ngi lay ngi lay sant yow tamit euh, boo xam ne ñu ngi koy fekk mu taxaw xaw ma moom moom oto ba boo ci loo maa ngi si jàmm. yaa ngi sant kay. yaa moom oto bi. oto bi waaw. ko yaa ko moom. maa ko kay. <laughs> baax na kon comme yaa ko moom léegi euh, ñu ngi lay nuyu bu baax di la wax ni euh, suñu match yi nga xamante ne si moom la ñuy préparé. fu ca Côte d'Ivoire euh, gis noonu la demee tey su doon man maa yow lan ngay wax Aliou Cissé. waaw ah, li may wax Aliou Cissé mooy match bii passé ni mu fulee moom mooy loolu de. bilaay ni mu ko fulee tamit mooy loolu de <laughs> te li ma gis nii. bu ma sañoon comme ni ko waajee waxoon sànq 4-4-2 su doon maay moom. 442 nañ ko tegal daal normalement. 442 waaw. d' accord léegi yow euh, gis nañ ni Gaynde tamit bi ñuy dem euh, ki nga xam ne moo di Bouba Ndour Aliou Cissé euh, woon Bouba Ndour ak Ndiaga Ndour ñoom ñu ñëw rejoindre Gaynde ci match bi naka nga ñoom it boo leen doon wax tey pour duggee ci terrain bi Bouba Ndour ak Ndiaga Ndour lan nga leen di wax. ah bu duggee si terrain bi ñu def fulaak fayda rek ah man daal man daal képp kuy def ci terrain bi daal da nga def fulaak fayda rek fexe ba coupe ñëw fi ñun daal loolu rek bëgg ñun mhm. te saa maa moom na gën a góorgóorlu yaa ma gën a xam fexe ba coupe ñëw fi ñun daal loolu leen digal ñun coupe rek moo ñu amal njëriñ. Mhm. te li ma bëgg dañ jàpp Gambie dóor ko dóor moom. Mhm. trois mi-temps cinq deuxième temps match bi tas. match bi tas waaw. ok d' accord léegi yow euh, bala maa tàggatoo ak yow laaj ki nga xamante si tamit moo di euh, suñu suñu suñu suñu ah, moom mi nga xamante ne si tubaarikàlla réew mi fi mu ñëpp ko xam mu di Fadiga moom euh, gis nga Aliou Cissé ko pour mu ñëw rejoindre gaynde ci milieu bi parce que dañ ne suñu benn jour dafa blessé moom tamit moom Fadiga boo ko doon waxtaanee lan nga koy wax. ah lu ma koy wax ah comme que pour woo ko rek yaa gën a xam na na def fula ak fayda rek mhm. yaa gën a xam wane jom fexe ba coupe bi ñëw fii daal man daal loolu mooy sama xalaat dama bëgg nga wax ko ne ko Fadiga comme dañ laa wóolu ba woola dañoo bëgg rek boo ñëwee nga def fula ak fayda kon Fadiga dañ laa wóolu ba woola defal fula ak fayda fexe ba coupe bi ñëw fii ñun daal loolu rek la ñu bëgg kase mi ngi noonu merci beaucoup ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm waaw ayca noonu la merci beaucoup ah, comme ni ma leen ko waxee gis ngeen kenn ku ci nekk ak sa euh, kenn ku ci nekk ak ay demal garaawul moo yow demal garaawul de mbaa yaa ngi préparé marché bi ayca ayca kon ayca mu ngi noonu ah, ah kontaan kenn ku ci nekk ak ni nga ko gisee kenn ku ci nekk ak ni ko koy waxtaanee kontaan nañ ci yéen bu baax a baax a baax di leen jox dig daje ba beneen numéro incha allahu rabbi ci yoon dala kan